أن ينسوا القلوب والسرائر بغلسه منا يكون زاحرا ثم صلاة مع السلام يتبع على الذي فينا خدا يشفع من بفداء الحدى تحلى وعن رسائل الهدى تحلى محمد الكاشف عن الأمة وآله وصحبه والأمة bokki julli ci bokki taalibe yi ginnaaw bu sante suñu borom Mawlana tabaraka wa taala julli ci bi sallallahu alayhi wa sallam dellu jaajëfal Seexul Xadiim alayhi akbaru ridwanullahi baaxil xadiim di ñaan suñu borom tabaaraka wa taala fayal na ko waaye di ñaanal bu baax Seex lool te mu ba li nga xam ne moom la namba liggéeyal lislaam moo àggale ko fa njortam ànd ko mu ndogo bar Seexul Xadiim di sant yàlla baax bi mu mayee ñu teew ci barab bi parce que def ni nga xam ne noonu la ko mbokk yi naale woon daje jàng alquran waaye jàng xasida ci kuréel ak durus waaye yëkkati fi ay kàddu yoo xam ne kàddu yu soñña la di ñi ñu ko commencé ci bismillahi rahmaani rahim ñu àggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin di seer bu baax a baax nga xam ne ñoo fi teew rawatina kilifa yi mu ngi ci tuddee sëriñ Daouda Ndiaye ak nekk ci ginnaaw ñu bari ñëpp mu mel ni waxtaan nag soññe lay xam naa bu gàtt ndax jamono ji laaju ko waaye miñ fi benn tënk bu gàtt rek ndax boo xoolee jamono ji nga xam ne ci la nekk mooy jamonoy aaxirul zaman jamono joo ne mooy jamono ji mujj ci jamono ji ndax loo xam ne euh, hada zamanu aqbahu zaman li kasrati al-insijaam fi al mu mel ni jamono joo xam ne jamono ju lëj la ju naqari mujj comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne danañ dem ba jëmmi jamono nga bëgg sàmmonteeg sa diine dana mel ni nga nàmp xëlu sawara ci sa nga mel ni nga gis ne jamono àgg na foofu waaye bi jamono àggee foofu suñ borom baaxee ku mel ni Seexul Xadiim mu jox na ay tegtal yoo xam ne boo ca amee danga mucc àddina waaye danga mucc àllaaxira nga gis ne yaatu na wu Sëriñ def ci soññe lu bari bari xam ne boo amee ci ay ndigalam ci aw tànkam lenn lenn jamono bi dikk bu fëkk la yóbbu la ndax Sëriñ Tuubaa suñu ko baaxee mu doon koo xam ne mooy sangub jamono ba tax na mu ay njënkaan yoo xam ne daf ko wax ci ay téere yu bari bari nga xam ne ndaw yar ndaw daf ko yitteel boo ci am na téere bu muy tudde tasawudul euh, sixaar yóbbalu ndaw ñi am na téere bu mu tuddee tasawudul zubaar ñi nga xam ne dem nañ ba àgg ci kàllafe jëm kaw ñoo ne am na téere bu muy bindal waaye tam am na téere yoo xam ne daf koo bind euh, ñaan mboolem képp koo xam ne ab daal bi waaye mboolem képp koo xam ne ab jullit bi moo tax muy wax ne yaa ayyuha sibyaan laa tastaqilu an ilhuda wa bil ulumi istaqilu fastaqilu bil himsi wa tilawa wajtanibu majalis ashaqawa wax ne eh, yéen ndaw ñi bu leen am benn yitteelul ak njub waaye na ngeen yittewoo di jàng di mokkal te it ngeen moytandiku jataay yu texet yi jataay bu texet nag buñ ko waxee mooy bépp jataay boo xam ne mbooloo ña nga fa te lañuy waxtaane lenn yàlla nekku ca lenn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekku ca boobee jataay jataay bu texidi la waaye wala zimu man la yesalu abida li rabbihi ila hudan xaida waaye ngeen takkoo ñi nga xam ne jataay yu leen xëcc la di leen wax ne lii mooy ak jub leedu ak jub ngeen di ko moytu ndax tolluwaayu jamono moo àgg foofu ba tax na njënkaan yi nga xam ne euh, sëriñ bi daf ko joxe mu doon yoo xam ne man nañ ne léeg-léeg nga dégg moo xam wax ne yii ndaw ñi waaye ndaw mën na caa mag mën na caa loolu moo tax mu wax ne lu jamono lënt lënt lënt lënt na ngeen teg seen tànk ci alquran waaye teg ci sunna yonent bi sallallahu wa sallam ndax sunna kat mooy li nga xam ne mënut ñàkk ci ab jullit rawat na ab taalibe ndax alxayru kulluhu fi littibaa wa charru kulluhu fi libtidaa booleen lépp lu de lu baax mi ngi ci topp sunna waaye booleen lépp lu de sabaan lu baax mi ngi ci topp bidaa ñu bàyyi xel ci ne Sëriñ dafa yar aw nitam waaye nag def dina xamal ndax da waxam ne awwalu waajibin alal muriidi tahsiinu zaatihi min tawxiid lu jëkk war ci am murit mooy mu am ab yóbbal ci tawxiid tawxiid mooy lan mooy nga xam ñi ngay wéetale suñu borom tabaaraka wa taala xam li war ci yàlla xam li jomb ci yàlla xam li dagan ci yàlla comme ni nga xam ne noonu la ci tafsir wax dëgg ci dikk ci teqale bi day gën a tam ginnaaw ga moo xam fiq fiq mooy lan mooy li nga xam ne mooy yi na say ibadat wala mu xam julli wala koor wala asaka aj màkk lépp àtte yi ci aju yëpp mu war koo xam bind ci ay téere bàyyi waaye te mu jàngale tasawuf tasawuf mooy al ihsaan mooy booy jaamu yàlla wala lépp looy def nga def ko ci jëm yàlla rek tax mel ni yaa ngi jàkkaarloo suñu borom tabaaraka ko gisul ngir mu jàngal ñu xam ñu xam ci suñu diine mën a teg suñu tànk ci siraatal mustaqim waaye boo gisee jataay yu mel nii mu am solo lool te ñu war di ci góorgóorlu bañ ci di tayal jamono moo toll foo xam ne nit ki mënta ñàkk ñàkk yëngu ci dara fokk rek boo yëngu ci lii yëngu ca lee ndax li ñuy wax ñaari kuréel loo xam moo fi am xisbullahi ak xisbu sheytaan ala inna xisbullahi humul muflihoon waaye xisbu sheytaan humul xaasiroon ñi nga xam ne ñooy kuréel nga xam ne ñoo ñoo ca seytaan ñoom moom nga xam ne ñoom ñooy jëm ci yàlla ñoom day doon la Sëriñ Tuubaa ci wala simu man la a abida li rabbihi ila huda fa gi jëm ci yàlla tabaraka wa loolu yàlla ci moo xam ko jotaay yu mel nii lool waaye nag ndax di jotaay boo xam ne ay tànneef la moo tax waaye bu doon jotaay boo xam ne xañ ne mbirum àddina la day xumb lool comme ni ñu bu ñu gisee ñu sànq lu baax rek ñoo ko moom xañ na murit ñoo ko moom wala tijaan wala ñeneen wala ñeneen Euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne al hikmatu daajatul mu'min mu lu baax moom julit moo fu mu ko fekk na jël bu ñu tegal fii lenn loo xam ne lu loo ak euh, mbirum àdduna mu yëngu ku dikku dene mooy ci ñoo ko moom doy tijaan ñoo fay daje kenn du xam ne kenn waaye nag bu jataay yu nii amee ñu jagleel ko ñenn bàyyi ñeen loolu ndigalul seetaan la pexe seetaan ba tax na jataay yu nii bu amee dañ ci war góorgóorlu bu baax a baax ndax li Sëriñ Tuubaa wax ne isil muridu la yuridu abada gayra rida rahman xaysu xasada ki nga xam ne ab taalibe la saa yi bu solee aw dàllam di dem fa mu war a dugg mooy fa bu mu sol aw dàllam dem mukk mukk jëm ci barab boo xam ne buñ ko doon Sëriñ Tuubaa ngi ñëw mu dëpp kon loolu du am murid te buñ demee ndax am murid dafa yomb yomb ndax sifaatu saati xil murid bi ixtisaar sëriñ bi andi ko moo wax ne ñeent la waaye nag li ci bëri lu bëri li nga xam ne mooy lu bëri ñi nit ñi di waru léeg-léeg ñu àgg ci yenn wax yoo xam ne sëñ bi daf koy wax te dëgg dëgg xam dëgg dëgg maanaay wax ja xam ko jafe na ndax boo déggee ñu wax ne li kullu man bi yata'allaqa naja min kadari dunya wa fi yawmi naja képp koo xam ne aju nga ci man mucc nga ci nëx nëx yu àdduna ak àllaaxira nga wax ne murit la toog doo julli doo woor doo nekk ci lu neex defe ndax murit la déedéet boo day ànd ak imtisaalu awaamir wàcc naa bi nawaahi booba gënoor a ci kàllu euh, li kul man bee taxam ndax naja min kadari dunya wa fi yawmi naja waaye nag sax bu ne murid laa pare li nga xam ne suñu boobu mi ngi koy tere bàyyi ko la muy digle defoo ko defoo ci lenn topp sa bànneex ah bu ëllëgee yawmal qiyaam lépp loo de alhamdulilah xam ne tallahi laysa yanfau shaxsa bi tam jàpp ne man euh, man ab taal bi la léegi pare naa wàcc naa sama wàllu jàngale suñu ba tax nga nekk ci lu neex sëriñ bi nee na giñ naa ci yàlla lenn luy jariñ nit ki bu teewee ci bàmmeelam lu dafa nekkoon ci ak jub kon loolu lu yàlla jullit ñi di ko xam rawatina taalibe yi te bañ ci war ci yenn wax yi bu sëriñ bi wax ne waxee ne ci man mucc nga da nga war a xam lan mooy aju ci sëriñ bi pare door a xam ci sëriñ bi bokk na ci di gën a gën a di a gën xam ne noonu ko yombale yombale jamono jël ñu war a farlu ci wàllu jaamu yàlla wàllu jaamu yàlla buñ ko waxee lenn la ci jiitu mooy julli ndax asalaatu azamul ibadat yonente bi sallallahu alayhi wa wax na ne jaamu yàlla gi gën a ci jaamu yàlla gi mooy julli kon ab bi fu mu man fu mu war nekk war na lépp lu mu jàpp ba waxtu julli jot mu bàyyi ko dem julli ji te bàyyi te bañ nekk ci ren alquran karim sax boo ko doon jàng ba waxtu julli jot soo ko bàyyeetu de nekk ci alquran jàng ba ngay jàng ñu la ci rëm te alquran mooy di gën a tedd mooy téere bi nga xam ne moom la sëñ wax ne bépp téere bu mas a ñëw ci alquran moo ciy gën wax na ne yow mu dangaa war di jàngi alquran tam disil kitaab wala salasatan min al azab war ngay sax di jàng alquran donte donte ñetti isidul kon murid war na jàng alquran war na jàng xasida ak yeneen ak yeneen yéen ñu xam ne li Sëriñ Tuubaa jiital mooy alquran teg ci leneen kon bu ñu jëlee leneen jiital pour lu alquran xam war ci naan jàngale Sëriñ Tuubaa te it xas yi itam ñu jàpp ko ndax euh, euh, bi kitaabati bi rabbi kum la mutaadiin di wàcc rabbi boo ko jàppee te seetal ko foo mënta àgg ci fi góor yàlla yi daan àgg rek ak ñeneen kay moo fi am mooy nga jàpp ko ñàkk seetlal boole ko leneen a leneen su boobu moom a nga caa yàgg lool sax ca lool danga ci doon sàkku doo am nga jàpp ne la suñ doo xam ci xasida ca nekkul waaye axaka yi la def mi ngi ne kàddu gi ñu bi nag dañu mbindum wala fal mbindum tax dañu ñu ko yeex a jox waaye xañ na ñu jéem ci lu xam rek inshallah kon leetar dafa wax ne mi ngi jógoon ci euh, Cheikh Abdul Ahad Mbacké mu wax ne assalaamu aleykum wa taala wa barakatuhu wa baad yéen mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu di siyaar ak euh, di xamal ne di nga xam ne mooy liggéey bi mooy dama wax ne yéen mbokki taalibe yi yéen ñi xam naa te léegi moom yaakaar naa ne mbir la te mbir la ko la ko ñu xam naa bu fekkee man moo amaat benn temps bu gàtt rek incha allah bu kenn jàllale ba ñu ci gàtt jàllale incha allah ndax te mbir la nga a muy gën a ngi jégalu baax kon. ñoo ngi jégalu ci kàddu yi bu baax a baax a baax di ñaan suñu borom Mawlana tabaraka defal ñu ak jégg ak defal ñu dimbali yërmande zaahiran wa baatinan ñaan suñu borom di jégalu baax ci kàddu yi xam ne euh, kàddu yi yéen la rek waaye dong nga bu nekk ci daara yi di foraatu te euh, xamu ko war rek borom wax ak yéen di jégalu